asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokki groupe bi maa ngi leen di nuyu di ziyaara ñaari kilifa yi doon waxtaan Serigne Khalifa Mboup ak Serigne Moussa Cissé di rafetlu waxtaan wi doonte maa ngi jàpp ne tomb bi ñu doon waxtaane muy gis yonent bi sallallahu alayhi wa ginnaaw ba mu wuy jee boroomam ndax loolu lu jàppandi la wala déet ndax lu am la wala amul tomb la boo xam ne jullit ñi war nañoo weesu di wuute ci lii ndax kii weddi kii weddi di dàq ne yonent bi alayhi salaatu wasalaamu jàppandiwul wala kenn gisu ko ginnaaw bi mu faatoo day am ay laaj yu taxaw ci kanamam yoo xam ne imma bu ca tontu kon wër wër te weddi wala bu tontee yey boppam laaj yi mooy lan ndax yàlla daa tële ndax yàlla daa mënut jaamam buy dund mu wan ko gisloo ko jaamam boo xam ne faatu na ndax loolu borom bi da cee lottu jullit ñëpp ñëpp ne déedéet kàttanu borom bi kay subhanahu wa ëpp na loolu kon lu jàppandi la lool ci yàlla mu won jaamam yii dund jaamam ya faatu woon amul dara luy dàq loolu beneen laaj bi mooy waaw loolu comme lu jàppandi la lu mën a nekk ndax daa xaraam ndax day lu bon wala alquran dafa wax ne loolu du am doonte mën naa nekk du du mas a nekk wala sunna da koo wax déedéet amul fenn ci alquranul karim walla ci sunna su yonent bi alayhi salaatu wasalaam fu ñu yaxal ne ku faatu nii dund duñ la mas a gis bal safaan bi safaan bi lañuy gis ci alquran di ko gis ci sunna ay jaani yàlla yuy dund di gis ay jaani yàlla yu faatu ñun ñëpp jàng nañ ci alquran yonent yàlla isa alayhi salaam da daan dekkal way deey loolu nekkoon mu'jiza lottal ñay diingata ñay diingata ka sikk sàkk ci aw xeetam wan leen ne moom ndawul yàlla la bu kenn wax ne Isa yonentu la moom la yàlla jagleel loolu wax moo dekkal waaye ñi muy def mu'jiza bi ngir ñoom ngir ñu gëm ñoom dañuy gis door a xam ne ah moom kat def na lu rëy ndax dekkal na way day waaye du jàgg ne Isa mooy wéet dekkal ñëw nettali leen déedéet dañuy gis kon ay nit yuy dund gis nañ nit ñu dee loolu jàng ko ci alquraanu karim jàng ko ci sunna xabaar yi rañaanu yonent bi alayhi salaatu wasalaam ak kéemtaan yu rëy ya ko ca yàlla wan xanaa dem koo gisul xanaa yonent bi dajeewul gisul yonent ya faatu kon alquran sunna lépp saxalal nañu ne kuy dund dana gis kuy faatu kuy dund dana gis kuy faatu bu loolu yépp saxee te loolu yépp sax na lan moo ci des am ku ne man gis naa man maa ngi nii di dund ci seen biir waaye gis naa yonent bi sallallahu alayhi wa ki wax lii mooy kan ki wax lii mooy kan nga xool gis ne kii boo ko nattee ci balaasu ragal yàlla daf koy fees dell boo ko nattee ci xam-xam mu raw la ba raw kala raw fuuf waaw léegi koo xam ne xamoo ko ci lu dul xam-xam ci lu dul dëggu ngëp ragal yàlla te du moom kenn keneen ku ni mel def ko keneen ku ni mel def ko muy mbooloo moo xam ne ci jamono yu wuute ci barab yu wuute di ay borom xam-xam yu màgg di ay nit yu baax ne ñoom yàlla teralee na leen yàlla teralee na leen may leen ñu gis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yaqadatan nga ne loolu du dëgg ba nga ne du dëgg kay dañoo doon wax loolu mënta nekk yàlla mënu ko wala nga ne yàlla mën na ko waaye yàlla nee na loolu du ma a am wala yonentoo ko wax bopp waaye yow doo ko mënoo wax ne mënta nekk lu mën a nekk la boo ne mënta nekk rek da ngay murtad génn ci diine yàlla ji doo ne alquran da koo tere ne du am wala sunna da koo tere kon sa dàq ji ak sa wedd ji fan nga koy teg fan nga koy teg lu dul par parloo lu dul maa bokk ci mbooloo moo xam ne ñoom dañuy wedd lii rek kon man dama koy wedd ah man daal maa ngi bokk ci mbooloo mi wedd nañu rek dama ko war a wedd subhanallah ndax mbir yi noonu la war a doxe waaye li ci gën a doyati waar nag mooy nga gisaat xadis bu wér buxaari yi yaxal ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne man raani fil manaami fa sa yaraani fil yaqaza nga bëgg fi wax naan ay charge la lan moo ko def charge yow boo jàppee ne fas am na maa raan yi wér na fasa yi wér na waaye ñaari wax yu wér la bee wax lee bee bii wax li benn dàqul ci morom ki jàkkaarloo wuñu dañuy jàngiwaat gën a xóotal gën a xam lan mooy shaaz ak max foofu waaye nga ñëwaat di taawil duma la wax taawil baid waaye taawil fasid boo xam ne mantiq nangu ko luga arabiya nangu ko fa sa yaraani fil yaqaza mooy yowmal xiyaam wala dana ma gis yowmal xiyaam la ca jublu lolu ak ko ko meuna tawil ta'wil fasid la ben borom xam-xam waxon ku firee fil yaqza yawm al-qiyam fil manaami firee ko aduna kon man ra'a raadi fil manam kuma gis ci aduna fa sayraani fil yaqza dana ma gis yawm al-qiyam lolu ay jaxal la moo tax taawil boobu tu wér yowma alqiyam yowma alqiyam yàlla dajale ay jaamam yonent yeeg ñu dul seeni xeet ñëpp dajee ca daje ba foofa lan mooy maanaam ku ma gis ci nelaw da nga ma gis foofa xataa ku ko gisul ci nelaw léegi bu ñu la fekk si woon bu ñu la fekk si woon ne la fasa yaraani ji buxaar yi indi wérul lan moo wér fakka fakka am na maara aani dañ naan la demal nga jàngiwaat lu arabiya yow xëy na li nga xam mooy ka annama xarfu tashbih la waaye ka annama ëpp na lool ka annama day taqrib day wane ne lu jege la lii daanaka rek am na ba noppi daanaka am na ba noppi azifa taraxulu gayra anna rikaabana lamma tazul bi rixaalina wa ka am qabil ka am na ci luxa ni muy jariñee tashbih jàngkat yépp xam ko naka noonu day jariñ taqrib moo tax tomb bi ma ne di ci werante ak di ci wuute dañ koo war a weesu ndax loo xam ne yàlla mooy def yàlla mooy dogal mooy def mooy teralee jaamam bu ko soob lii lu mën a nekk la ñëpp d'accord yàlla waxul fenn ne lii du am walla lii du lu aay la lu xaraam la lu muy tere la ay jaami yàlla yu baax yu ragal yàlla ne la yàlla teralee na leen lii nga ne leen loolu wérul day xaw a niroog ñàkk teggin lool wallahi day xaw a niroog ñàkk teggin lool waaye sa dëgg-dëgg mukaabara gu leer naññ la par parloo gu leer naññ la sama waa kuréel daal yi lañ wax loolu laay wax bu buñ jugee ma jub ànd ak ñoom buñ daanu ma daanu ànd ak ñoom loolu nag ab jàngkat da ko war a weesule boppam ab jàngalekat da ko war a weesule boppam am na ci masaa yi yoo xam ne ay jamono borom xam-xam yi di ci wuute xëy na luñ mënoon nangu la ngir tolluwaay jamono waaye fii mbir yi toll tey nag ak ni xam-xam yi di wuññi ko jaadootul kenn di werante ci tomb bi jaadootul mukk kenn di werante ci tomb bi